mbokk internet yi kon tey talent kese la talent kese je pense que xam ngeen ko yàgg ngeen ko gis ñu koy doxal waaye tey dañ ci dalal ndaanaan bi nga xam ne dafa am solo trop ñu koy wax Alla Seck doomu Yoff Géej waaye nag àll balaa ma koy dugal balaa ma koy nuyu Alla lu ma yëkkatil Alla ki lay defal du ko nettale yaay mbega boorey ndeysaan kooku yor sa suturaay kii mooy séeri safetu coowoy taala man day gërëm naa la mbega mboor tala mbenga sama xarit aw ma lu ma lay faye mbenga mboo rëy way la sagal nga ma sigil nga ma si yoo fi géejooy di la ñaanal cey borom kun fayaaku nooy xalaale yéen accu damay dégg nga naan àll da nga fan sa bopp dafa am pour man maa ëpp xaalis si monde bi. ndeysaan maa fi daa fa sañse. fi ëpp kër yu baax pour man. waaw donc dama fan sama bopp. ah dal la jàmm def. Kita tabax lien bi maa ngi lay Di lépp jàmm. adduna la eh, maa ngi lay ziar. naka yoof. lépp naa gëj gise trop. waaw ah, na ci bagage rek. mais anu, àll man dafa am lu tax ma invité gitu la. Hmm. album bu Bes bi nga génne. ñu toj instant bi di rëkk. moo tax ma invité la àll loolu ñu ci mën a wax balaa ñu dem di ko seetaan gitu li non non xam album bi boo ko man ma faa sama bopp si côté boobu. waaw dama ko génne def ko vente aux enchères dem naa ay télé. da ko def vente aux enchères. gars di ko man leen àll la. àll la man aw sentiment dama dem vente aux enchères ko def. 30 45 oui yàlla ma tiima te maa ngi sama bàmmeel. ndeysaan yow ak loo bëggul amal dama koy sant yàlla bu baax. muy imaam jaraaf kilifa ñëpp dañ ma sant oui sama kaset lamb vingt et un janvier laa ko te yàlla dem si jam. te maa ngi prévoir yéen affaire yoo xam jëm ka ci suuf la. man àll dama la xam waa ju gi nii waa ji dafay affaire xam du ko wax kenn man sa album bi dama rek gis la xam ñu la affaire bi di di bomb daal ma man. album normalement war naa ko war naa ko man bokk naa ci ñi ko war a mën a njëkk jot war ko war a mën a njëkk seetaan te album bi nga ne ma ñaata titre la mi ngi ci sept titres yi je pense ah. six six def six nga bu ci nekk nga indi ci benn mais nag li ma ci gën a frappé man euh, Talla frappé na ma ci doom yaay pra euh, doom yaay frappé na ma ci mais ñu bëri frappé parce que ala man dama la xam mais bi ma gën a neex mooy tout le temps bi ngay véhiculer mooy Yofi Géej ala sa digganteeg Yofi Géej. man boo gis ne ma kontaan. yow yof la daal xam nga. en plus yow xam nga. waaw dama fay benn mouvement xale yu ndaw yi. ndeysaan. damay interdit ku leen jox cigarette. Mm-hmm. ku la seen téléphone papa ku leen jox sarax élèves yëpp ah. waaw dama koy interdit xale yëpp quoi. moo moom samay kaddu yooyu naa liggéey boobu ci Yoff yaa ngi koy def mu nekk liggéey bu doy waar mais àll bu ñu ñëwee tuuti sa carrière balaa ñu ñëw ci album bi àll kañ nga commencé way moom nga xam ne dañu doon franchement mënuma wax ban wax ban année la. parce que dem naa si football bi. moo ma téye bal nga jógee de. ma xam ma xam loolu baax <laughs> ma xam loolu. <laughs> xam naa loolu ci yow xam naa loolu ci yow léegi kan mais may jàpp benn anecdote boo xam ne yow yow def nga ni bii nga commencé. daal mënuma mais nan la ñëwee affaire bi. waaye bi nan la ñëwee. am nga benn jeune toog ñëpp ay kasak am. waay gars yi toog kasak yi xam nga ambiance dugg fi ngeen. kasak ay kasak waaw. gars yi tey foo ma toggee bi àlla ëppal nga ma nga de àddina nag fu tabax yaa ngi dee waaw fii gis ko juddu ngemb ni da ngay osé damay ñëw kaset boobu loo dugal bu njar may lenge yaay ana yaayu mbaar njar may lenge ndeysaan tukkur fawul tukkur yaay kii mën na booyo ndeysaan ndeysaan foofu mu fële gaa yi gaa yi miir gaa yi miir nga jàpp ne yow léegi foofu kon foofu war nga ko mën a déparé carrière bi yéen kaso bi amaat moo tax xam nga nit moo tax mu ko jógee yàlla yàlla yow texila dina pa mel ni Moussa Ngom xam ni sa àll wala affaire boobu ñëw dikka ñëpp xam nga Moussa Ngom toog ay kasam yu mag ah, ah, ku ne di ah. dosé di ko xam nga woykat bu mag la ku ne di woy woy di ko def ay gauche di jox affaire quoi waaw trois personnes waaye man ma war a quatrième quoi ma jël ma war a waaye. noo duggee. ku la ji nga jiñ ko yi ku la jiñal nga bakkoom dëndëm. desaan akasa akasa. non non ñëwaatal non ñëwaatal. delloo ku la ji nga jiñ ko yi ku la jiñal nga bakkoom dëndëm. waa ji ne ndeysaan. mu ne ko yaay dama duggi di waa ñaari xam ne Moussa. saa yow ka la ko waxul doo xam sa yaay sax sax sax. mu jóg ah. génne baal tëral ma. waaw ah. ku ne deful li ma bay ba ngeen xulli de. <laughs> day ñëw fii dem toog leen waaye. <laughs> àddina ku la suuf nekk njool mi. waaw ah. kii ñëw na. waaw ah. jox ko cëram. jox ko cëram. ku la suuf àddina la. fu may fële yàlla sama sant yàlla. kon àlla ñu dem xooli clip bi te ñëwaat. <laughs> mbokk internet yi retour sur ce plateau mbokk internet bi gis ngeen clip boobu macha allah mu nekk clip boo xam ni mais àlla clip bi nu mu demee nan ngeen ko tourné. te bi xam nga avant tourné sax gars yi koy xëccu quoi àll kaay ma tourné la kaay ma tourné la moo tax baax rek am njëriñ mais àll yow kañ ngay ma des xam ah, nga àddina la nit ñi am na fii àddina la mais àll yow kaay ma tourné la kaay ma tourné nga toog fi naa eh, non non ku lay xamante ni man dama dama kaar macha allah xam naa loolu am bant bi sax mi ngi di teel <laughs> àll tourné si clip waaw àll may tourné si clip waaw baax waaw mën naa ko xam nga bravo quoi suñu benn gars bu baax bu ñëw waaw ndeysaan àll non damay indi turam non joxal turam joxal turam garaawul may naa la ko joxal garaaw turam ah, ah taala taala waaw benn grand ko xam nga ah, mais taala jëndal benn taala benn benn taala andi oto ma yëpp tranquille quoi gars yi def yow am am mais alal la jox ma xaalis toggal ma añ yëpp quoi ah. tourné moom moo moo ko marqué waaw mu toll ñu ne àll dafa baax yaa def ñu dugg fi génn fii quoi te ni day am problème parfois guddi sax def si yàlla tax addina loolu la quoi mhm. xam nga moo tax ku ne di wax ma def affaire yi mu naaj daal. ndeysaan léegi àll kon euh, ngeen dégg àll mu nekk waajoo xam ni euh, àddunaam disalu ko de daf ko oyofal moo tax euh, dafay toog foo ko fekk dafay kaf di ree balaa ko koy xam dëggantaan nga fekk fi nga xam ne moom mooy yoof day kaf ak xale boobu agression boobu muy wax non da koy boo demee yoof doo ko fekk ak ay morom mais da xam ne moom mooy xaleem première talent kese bi ñu njëkk def fu la fekk ñu ngi la fekk foofu nga yaa ngi ko defee ci biir xale yi je me rappelle bien mhm. kon nga xam ne li muy wax dëggu la ci yow léegi àll dañuy ñëw nag ci li nga xam ne tey léegi moom mooy album bi premier titre bi mu tudd Ajibo pourquoi Ajibo Ajibo daaya laayi ñi réeroon démb seen seet ya nangu tey aéroport a nga yoof kuy waya sil tàggul limaamu ak ujastu fanaaw te tàggoo limaamu sa beeñ ba sina limaamu sina limaamu xam nga yoof moom xam na waa kaw aéroport a nga yoof boo waya tàggoo ko doo dem doo dem léegi léegi inspiration wu album bi nan la la dikkee pour son bu Ajibo parce que si bu si nekk dinaa si ñëw tëboo tëb rek mu ñu mee nan na la dikkee yoo xam tamit xam nga ah. ah. la woon maa ngi wax ci kaay boo xam ne wër waxuma sax lu ëpp àdduna ñu koy da koy la woon kër seen laay loolu may ne bu seen i coow doom baay la ñu boroom lu ne laay dama foog cër lu ma ne laa fay def duy ne nag sama jigéen sama xarit caw laay parce que dem ma rek xam nga waxtaan sama xarit la quoi laay dafa foog cër quoi ma waaye morceau bi dafa am benn affaire mu duggoon dama ne aji bo, aji bo daya yàlla yi jëkkati ko tuuti ñi bañoon dem ba seen seet yéen nangoo tey benn xaalis kilifa la ma àll kaay bañ bi moo xam ne dama bëgg changer affaire bi am ma jox xaalis nga dem jox affaire yi moo ma studio aji bo, aji bo daya yàlla ñi réeroon dem ba seen seet yéen nangoo tey am affaire yi ko ma defaat ko kon bi nga ko commencé rek nit ñi déglu nañ ko woowaat la kooku woowaat la ñu la nañ ko defaraat hmm. nga daal di ko defaraat man dama benn affaire moo xam na hmm. ma fees gis loo xamante ne neex la sama waxal waxal boo gisee may toog télé def loo xamante ne gis naa waaw xam naa ne man xam naa ni xam naa ni loolu ngay dund kon tey dañuy def li nga xam ne moom mooy euh, deuxième numéro bi ñu koy def Yofi yof géej yof géej mooy la yofi géej suñu dëkku maam la moom la ñuy tiitaroo waaw mag ñu baax ñi fi nekkoon daaw ñu def lu ñaaw jaraf ngaa la jéen daawul def lu ñaaw saa jóge mag ñu baax ñi fi newoon yëpp dem nañ non àll loolu du ko way nii rek benn yoon da koy wayaat ñu xool parce que yoof nga wax yoof yoofi géej affaire bi du simple dañ koy laal ko suñu la mag ñu ñi fi daaw ñu def lu ñaaw jaraf nga la jéen daawul def lu ñaaw ndeysaan Cheikh isa ciao daawul def lu ñaaw ay mo ñu baax ndeysaan son bi koy dégg maa ngi ko fekk maa ngi ko ci festival woy yi amoon yoof falaa ñu taxaw gis nga way ko ci digg geew mu nekk affaire bu daw yaram bi nga yëkkatee boo yëpp naaw àll sa relation ak yof sa fa nga dëkk mais da nga am relation extraordinaire bi yof man mën naa jàpp ne sax tey bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo jiite xam nga dëkk bi muy yoof ngor wakaam parcelle géej wax kenn moomul kenn kenn moomul kenn boo juddoo defal lu baax nekk nit bëgg lu baax kooku jox ko cër parce que fii pakastalu tamit yaay doxee weer rek de kenn la fi di fu fi dox pakastalu sa cere la quoi sa cere la boo xëyee jullit jaamu yàlla fonk say waajur koo gis dimbal yàlla tax jox ñu cër fii àddina la kenn moomul kenn de <laughs> àlla kon dangaa wax benn affaire amatul yomal xiyaam dama la pour moi mais àlla àlla am problème àlla yow da nga nit dañ soof mais yaa soof ay pakastalu la dama ne fu <laughs> dox pakastalu nga doxee yoo xam allah bu ma rey waaye allah ñu toxal beneen bi ñu ñëw ci allah dina ma rey allah nii la mel ah, à chaque fois bu ma dajeeg moom mun naa mun ne ba mu des ki nga xam ne moom ah, ñuy def ni sagal sama yaay allah ma xam fi nga tolloon sa yaay dëggantaan sa yaay nekk beneen dimension ci yow ñëw ni sagal sama yaay allah lu dafa yéeme. sagal sa waay. sagal sa sa waay. sa non sa sagal sa waay waaw sagal sa waay. dama jóg su ma grand bu baax. oui sama xarit la ñoo toog ba heure benn këram kaar macha allah mais ay ñëpp sa waay la waaye moo tax xam nga sama xarit la. oui Ablaye Thiaw Ndoye bi ngay dégg. Mm-hmm. xam nga ñu bari bari quoi. Mm-hmm. samay gars yi ñoom Ablaye Thiaw ñoom Pader ñoom ñëpp. waaw mm-hmm. sagal sa waay loolu aayul ku nit ku baax war nga ko xam.

parfois nag naa toog ba une dama koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yërëm ci xel ak mm-hmm. àjjana ak mm-hmm. mbooloom julli. Mm-hmm. yaay ju baax la quoi. loo xamante ne franchement ma ragal. te daa ne benn a si àddina mu ne sa jabar du a naxar si àddina chaque jour xam loolu rek ma mën a xari. oui si àddina quoi mais dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm

kenn da mooy gaaw te duma sayex muy borom kun fa yaakum kenn mais àll nga ni ku gaaw ku ne di nga ma sayex yeex kenn moo dul gaaw muy borom kun jeexna ñu dox ñu daal di ñëw ci dom yaay dom yaay moytul mab say say ndax say say jeufam da fa ñaaw say say xam nga jeufam da fa ñaaw lool dalay fekk nga def lu baax mu andi le problème yo xam da nga war mo tax sama mouvement anti agression bu mu la wax anti agression bi yo man ma fi dekk indi man ma gis ben jour

jette la booy li baaxul àddina li mais agression dama koy lancé woon comme message wax naa ko feneen mm-hmm. dama ne agression yow ñu ko tolloore luñ ko tolloore non amul tolloore agression yow ko mbokk yi ñoom ñoo jël seen initiative boobu boo xam ne dafa am solo trop ñu dem ku am ku am yaay ju baax ku am yaay da nga koy way sa feetoo jaara joo mais sama bu baax boo xam ne franchement waaw daf may defal taranga quoi xam nga te yaayam ku baax la daf may defal lu nekk mu fekk sagal ma sama xarit ba sama waam laa wel boobu ko doon yaay ju baax da nga koy wey sa feetoo jaara joobe sama waa ji waa ji dawul jaasi sa feetoo jaara joobe. Mhm. après baax roo ngi nii di yewen. jën jën jën lu mu am si jaam bi la jëm. sa feetu jëw dencul ay dërëm yu da xëñ. ndeysaan kokoy seeri taala sa yaay gërëm na laa. ndeysaan coow loolu ku baax ku baax ndeysaan allah man booy wax damay am chair de poule oh, yàllaa ko def man damay taxaw kenn lii yow man wax naa ma dama osé man la man ma ku may téye ku yàlla sax jaaru baa ngi nii am nga sentiment de ku bëgg a jaar ma dama la jaaru baa ngi argon am nga sax da ngay nekk nii dañu nekk nii boo xam ne nga mën la ngoyongo yi boo ma naree pakastal nag moto lay béykee amul sax wax teraanga àddina bëri la teraanga di xam nga la jullil jaamu yàlla fonk say waajur sañ sa ba rafet waaw jox sa waajur waaw bàyyi tux naan affaire nga teg ko doog ku ko def ku la yaa xam mais nag di bëgg ëllëg si kër gu rafet doo ko am oto bu nice man loolu laa osé. ma dama osé kër gu nice oto bu rafet jabar ju baax muy dawal oto ñuy jaay parfois ñu def si supp ñu baax. non bu ne en ah, la <laughs> tamit tamit loolu laa gëm de. man sama àdduna la man dama osé. dama osé man kër bu baax oto bu rafet am sama jabar ju baax. waaw mu dem teg la ci plateau bu baax. parfois moom laa sama gars yi. waaw moom dama parce que benn jour suñu benn gars yi dafa am jabaram quoi. benn jour waaw mu sama jabar man xam naa xam sa jabar sa xarit la. waaw mais da nga xaar ba une heure du matin nga tàllal bi quoi nekk joxal mu jox nga nekk chéri kontaan naa si yow mu xaar ba une heure du matin tàll lamp bi tàkk daw si mu ne joxal doo si jox doo si lan la looy wax doo si quoi nekk noonu kontaan naa si yow trop kontaan xam ah, nga jigéen dana ah, gars yi ah. nañ jox jigéen ñi cër quoi man ma nañ ma jëpp moom sama bu ne en état sax damay doxantox moom ba tam xam a na si ndox mi so dafa waaye tarangaay dina bët xaw ma kan la mais ki may jël moom yaayam liggéey moom <laughs> xaw ma kan lay doon mais moom Dilakawai ayadi ko di ayadi yadi ko somé. Nga ni lako ah. yowe? Xol xatu nawlewul. Suy bëgg du tàggoo. Xol daal ko sa yaatal du yaa. La ca ne bàyyaa. Yaay jëkkër du morom. Ku si bëgg sa say neex fonkal sa goro. Lii wóor na. Mais nag gaa xam duñu fa loru jigéen parce que jigéen ñi la rek. Mais àll àll yi instant nga koy bëggante. Mais am na ko ma bëggoon mais. Non non non. koy bëggante laa wax. Non koy bëggante fi toll nii. xam nga da di bëgg yéen defal duñ ko xam xam nga kuñ bëgg kii ñëw yow man yow te yàlla mi ci wax nga siy bëgg di defal ay teraanga yu mais xam te teraanga rek ngay dox man ah man xam ne man damay xam sa pontu tubéy nan benn waaw sa dàll la waaw sa couleur bi ngay solo nooy yëpp dama koy xam moo amee na chir à toi de jeu ngay boo demee xew sax ku la bëgg xoon eh àlla ma jëndali jigéen loolu mooy sagam sañse

ah, ah maraha ala ñu doxal ñu daal di ñëw ci ki nga xam ne mooy mooy suñu grand laay wax muy grand taala sa waay kooku mooy daan sàjj gi waaw kooku moom duñ ko daj duñ ko yëg duñ ko teel a yëg duñ ko teel a wàcc no kooku mooy ki lay defal ki lay defal du ko nettali xam nga dafa garaaw yëkkatil ma xool ki defal du ko nettalee yaay mbénga mbooreey ndeysaan du ko wax kenn de kooku yor sa suturaay kii mooy séeri safetu cogo wooy taala ndeysaan mën day gërëm naa la Mbengue Mbor. dafa graw graw sama xarit. waaw iya. aw ma lu ma lay fay Tala Mbengue. sama doomi ndey la. kooku moom monsieur wax day benn affaire la doon. waaw xam naa sa diggante ak moom daal daanaan la. daanaan la defal dara bokk ko waaye ñi ma xam fii. yow daal Talla mooy affaire bi. te sama xarit sama waay. muy Abdoulaye Diouf Sarr. waaw man c'est un ami du ay ay affaire ministre non sama gaañ la. sa gaañ la on est très bien max moom dañu lépp. avant dara dara. xam ko ñaan yàlla rek yàlla ko yàlla defal jàmm. amiin mbaxana mi yàlla na toll toll si kawam. parce que daanaan la c'est un grand monsieur te c'est un lion. naka yëpp yëpp jàppale quoi. Macky nag il faut bien gérer Abdoulaye quoi. c'est un grand monsieur. c'est un message bu message bu ñu koy lancer la. oui Macky yow laay lancer message bi quoi le président. Ablaye Diouf Sarr ñun yoo xam am jàpp ko dañ lay jàpp gën a bu baax te yóbbu gépp ñu ko jàpp mm-hmm. ku baax la billah c'est un grand monsieur Ablaye Diouf Sarr d'accord amul amul benn problème léegi allah. ba euh, émission bi mi ngi waaj mais àll fan la nit ñi mën fekk foo xam fa nga leen di bëggalee pour l'instant pour l'instant comme vacances dafa ñëw nii waaw damay posté deux semaines parce que ndaw yi gérer leen parce que semaine bi dama dugg école yi da nga dugg école yi wala jox leen jël cigarette waaw de la seet def na Pape Lo ko jël. da ngay sensibiliser daal. war nga def chaque année. bénévole quoi xam nga dem si élève tamit ñuma ñuma quoi moo tax ma dugg parfois naan bonjour maa ngi bonjour monsieur toog leen bonjour monsieur demee napp quoi. waaw ah. te mu ñaan bonjour eh lan la toog leen. toog leen ñëw naa ku leen jox cigarette bu leen ko jël ku la sa téléphone Pape bu leen ko joxe. Ah. ku leen nuyu bu leen ko nuyu. Ah. man dama ko interdit xale quoi. moo tax bu ñu jotee ñëpp dem 6 heures gi dem jàng sa leçon tranquille conférence jeex na semaine bi sama activité quoi. damay dem gis école yëpp wax leen defaat affaire yi. mais bu loolu jeexee di nga reprendre ak. damay tojaat dëkk bi après damay dem grand tiw. waaw xam nga grand théâtre. grand théâtre dem kon tur non. Ah, après dem kon kon yow kur tur boobu sa la grand si laa yow si laa ko yow. Ah, si yow laa ko dem dëkk dem beru. dem beru. Oh, beru moom xam naa Bercy. on va casser la barre là mais da nga osé nag. rangaat dina man kii àll bi xaw man dox sax wala ba nga dem A. yaa ma nekk hamburger seen tas ma dama fa laaj benn pigu. waaw xam nga pigu. pigu hmm? sax. àll dañuy doxal. léegi àll benn ma foofu sax. àll àll su ma la amee. ay di ñaan borom kër gi yàlla ko yàlla defal jàmm. amiin parce lii dafa neex. waaw. parce que jafe na si ay këram. jafe na parce que France yow yaa baax quoi damay ñaan seen diggante rek. lu ngeen si ragal rek. yàlla na ko yàlla baax. amiin lu ngeen si ragal yàlla na ko yàlla baax. amiin borom kër gi yàlla na ko yàlla gën a defal jàmm. ngeen gën a jubóo lii dafa neex quoi. parce que tamit jafe na si ay affaire yu mel nii. di ñaan yàlla di ñaan équipe bi yàlla yàlla defal jàmm. Uh-huh. di xamal ne leen yàlla moo man lépp. Uh-huh. yàlla yàlla defal jàmm. Uh-huh. may ñu wér di nuyu samay copains Yoff Ngor Wakaam Yoff di nuyu sama xarit aji bëgguma bu ngeen bëggee leen dem

non non ok. Allah, D'accord. bu avez un rek problème. amul yàlla di De oui di vous rek. oui téléphone bi D'accord. vous ko 77. oui 551. 74. 70 77 551 74, 70 ko defee nag. un nii Vous sama sama Sénégal TV bu ko xam ngeen li dafa Sénégal TV ngi ni Vous yeen bolé Sénégal TV. sa kaw. sa kaw sa kanam kanam mooy Sénégal TV bi nii xale yi service leen rafet nañu mbooloo ngeen doon benn maa ngi ñaan ci yàlla borom kun fa yàqu nooy bu boole xol yi bu leen dara pakastaloon Sénégal TV sa kaw Sénégalo gërëm naa leen fonk naa leen sargal ngeen ma Sénégal TV yéen a ko yor tey yéen ko yor ëllëg comme da bu ko defee li waa jiwaan barke barke salaam salaam catul he setitallah Sénégal TV ngi. waaw mais Alla daan loon noonu ci indo. waaw addina la waay da fu juddu ngeen bu ma soo gis. mais Alla ni la lay bàyyi damay fu juddu ngeen mais Alla ni la ala dafa sof <laughs> mbok internet du senegal TV ki lañ fi dalalon muy ala ndaran bu maga nek nak ko xamni vraiment dafa yëngu ci lepp lo xamni dafa jëm ci walu social bo demee yof ci ngay xam dëggantaan kan moy waji senegal liñu xam rek moy ki siwu senegal liñu xam rek moy ki ñi dégg aduna ki limi def mom gox bu mu dëkk la marqué dox gox bu mu dëkk yof bo duggé ci chat bi bo né all rek dal la yobbu ba kërëm té boko ko gisee nga koy gis mo ngi xol fu xalé yi nek di def ay naka su dul noonu mu leen di dimbali man moom am naa ci tee booy amul benn programme buy am yoof te kenn du ko ci boole waaye nag yor na ay caabi yoo xam ne tamit ci biir yoof la ku mu tijjilul wax dëgg yàlla te ñëpp la tijjilul xam nga nit day yor caabi naan ku mu kii laay tijjil ak kii du ma tijjil mais danaan barki dem dañ fa romb sama sa kanam man yow ak nga ne ko boole boole amee ay programme ñoo leen fii caabi jaa ngi nii maa ko yor kon loolu yombul yàlla na yàlla def jàmm kon maa ngi remercier ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ko ci mel ni Jeyna bi soxna Faatu ñaari Faatu yi ci ginnaaw wax dëgg yàlla kontaan naa trop ci yéen jërë ngeen jëf ba benn yoon incha allah ak talaa kese du yomb nee naa leen xaar leen ñi ngi seen bundu kër wala yéen yéen ngi suñu bundu kër jaa ngeen